mbokku internet yi rawat na Africa Global Express TV ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar indi beneen thème bu am solo thème bi nga xam thème bu pertinente la ak moo tuddee bi nga xam ne lu jëmale ko ci wàllu mbirum divorce bi divorce bi bàyyi na bari boo xam ni daanaka dafa saay boo xëyee gis lu mat lu mat 2000 personnes yoo xam ne dañoo divorcé nee na góor ñi ñoo mënta yor jabar ñi ne jigeen ñi ñoo materialiste wala jigeen ñi ñoo bëggu te sey ak lu mu ci ta doon dina and ak sama cameraman bi ñaal bi munaas xana ma and mom dugg ci askan wi rek ku ci nekk rek yee ci baa nga yàbbi ci bu nga gisee divorce bi nga xamni mo lu mbaaje rew mi jigeen ñi bëggu te sey wala góor ñi ñoo ta yor soxna deug la divorce bi bari na trop mais jigeen ñi dañoo doy war tay fi ne ni aduna bi dafay yàqu tas na bu pare ndax jamono gi jigeen ñi am nañ fit fit go xamne dee am jëkkër nga dégg am far te loolu dafa bëri léegi surtout maa ndagaaru njaay gi dafay bëri vraiment loolu nag naa si sawar man ndax man yàlla mayoon na ma soxna ñu divorcé waaw jamono gi dafa yéeme góor ñi ñëpp nag bokkuñu yem vraiment mais góor ñi tamit nan yërëm jigéen ñi si benn côté mën leen a jàppale mais am na yoo xam ne problème yoo xam ne kenn du ko kenn du ko laam-laamee vite fait da ngay ndax am na yoo xam ne kenn du ko téye quoi comprendre nga waaw mais jigéen ñi nag laay dolli rek laay dolli ñu def attention si loolu ndax loolu dafa bëri ci réew bi am jëkkër am far bëri na trop jigéen ñi na def attention vraiment loolu laay conseillé jigéen ñi mais góor ñi tamit nañ yërëm jigéen ñi comprendre leen waaw mais tamit am jëkkër am far dafa bëri trop loolu na ko moytu loolu kenn du ko laam-laamee ku ko def ñoo lay fase dem seeti leneen. parce que nit ki pour man soo ko bëggee da nga koy wax li alal sëyul taar sëyul soo ko bëggee wax ko li nekk mu ànd ceeg yow mais xam nga tey bu ñu la takkee wax la loo xam ne li ñu waxoon yëpp dara nekko ci soo demee ba gisoo lu ci li nga xam ne waxuñu la ko woon yow yaay bëgg a génn xam nga loolu tamit day indi divorce la plupart des hommes ñu baal ma ci wax ji dañ dul wax dëgg mooy waral divorce yi. jigéen ñi sëyituñu te yàlla tax góor ñi ñàkk nañ jom parce que jigéen ñi comme seen classe gi mënuñu wodd mënuñu togg. mënu len lal seen lamine dagna na seen bëgg-bëgg bari na lool yëpp ngeen boole andal góor ñi attu ñu lool yëpp parce nang wuñu liggéey dañuy tok so len laaje seen xol jeex su ko defee sey tas. non loolu euh bari bari na lu ma ci jangat bari na lo xamantene duma ko si jangat tam ndax tay euh, bo gisee divorce yu bari dafa bari lu ko waral da ngay am sa da ngay am sa dom mu bugante ak kenen non seulement doo ko bàyyi mu sëy ki mu bëgg après nga def ko mariage force lool day ni divorce yi te tamit dafa am goor yo xamantene tammi tamit dañuy mbubboo dañoo am té amuñ so ci so ci jabar pour nga nak mom problème lay doon ndax li nga ko woon àll fekk sa kër du doon ben lool tam problème xalé yi goor yi la té benen bi euh souvent damay delluwaat ci parents yi ay xalé buñu bëggante xolal bu fekkee yalla def na bokku nañu diina nga mayante nga bañ out nan ki fi la ki fe la bok lol mo da tas sëy day tay da bari lol mo waral tas sey dafa bari ndax da nga gis ko xamantene ni dalay dalay dalay top ndax khalis bu la topé ndax khalis bu ci gisu khalis day delu te jigen tam bokoy labat nang ko labat lo xamantene ci deug akulaay tàllaay am na ñoo goor yo xamantene ne ñu fi pour tak jabar mais nañu ne fi pour mbaralant koku bu takke jabar tam du tey jabar ji ndax am lol taxu koo jóg. Ah, ñi am ñu ci ñoo

ça je le dis partout où sama jabar a gën ci àdduna parce que li xale yi mel nii melu ko mu ngi jóge ba saint waaye dana teel a yeewu dana topp doo suma yaay dana ma topp doo man ci kaw lal ba may fekk ak lekk man daf ma dem ba yàq ma tayal ma parce que bëgg na sëy li ma leen di conseiller mooy ñi nga xam dugguñ nekk ay xale ñu wut liggéey parce que soo amee liggéey. y aura moins de charge te waxuma nga jël sa alal di ko jox sa jëkkër mais su boobaa di nga assouplir plir les charges di nga wàññi charges yi te su boobaa dina neex mais dëkk laaj ma may ma jox ma rek yàlla sax soo koy laaj chaque jour chaque jour loolu moom rek moo ko attan. waaw ñi nga xam ni dañuy doog a dugg ci sëy dañ leen di wax ñu góorgóorlu ndax sëy du caaxaan man dama koy wax man dama ma loo am te amoo borom kër amoo dara jigéen dafay am wéeruwaay te mooy borom kër. kon ñoom dañu leen di wax ñu muñal ñu rek te téye ñu xam ne bu ñu matoon kenn du ñu muur ñuy say voilà mbokk yi xarit yi lii lañ leen indi woon tey ci temu divorce bi ñoo ko déggandoo ku ci nekk gars yi ku ci nekk wax nga ci sa xalaat ñii nee nañ góor ñi la ñii nee nañ jigéen ñi ak ñu ci mënta doon daal yàlla na yàlla def jàmm defal ko mbooloo mu jullit xanaa di leen jox di daje rek ba beneen yoon bu neexee suñu borom ak yeneen itam